ci xibaar xale ci jot a fës dañ koy doxe Cheikh Yérim Seck convocation bi nga xam si nag euh, tey ji doxal nañ ko ko nag fële nga xamante si nag moom moo di ca si bi criminalité moom mi di Cheikh Yérim Seck ginnaaw nag ak Bougane Gueye Dany tey ji nga xam woon na fële xam si moo di ca police nag moom mi di Bougane Gueye Dany moom mi di Cheikh Yérim Seck nag déglu nañ ko ba pare rek daat koy placé ak garde à ginnaaw nag ay kàddu yoo xam si ne yëkkati na ko nag ci euh, ki nga xam moo di Jérôme ki bi nga xam si nag arrêté nañ ko ak arme yi nga xam si ni yore woon na ko moom muy genre mandiek rek li nga xamante ne si nag moom moo di arme yooyu nga xam si nag yore woon na ko nag nag ba tax na si yérim si kii yëkkati jaay wax na nag am nañu ku nekk ci gouvernement bi moo ko jaay nag li nga xamante ne si ne nag moom moo di arme yooyu mu nekk nag kaddu yoo xamante ne si ne Cheikh Yérim Seck yëkkati ay nokko nag ba ñu tax daal wooru fa nga xam si nag moom moo di ca euh, police ci Bougane Gueye Dany nag moom ñu nag déglu nan ko ba pare ba mu ñibbiwaat fa nga xam si nag moom moo di këram moom mi nga xam moo di euh, Bougane Gueye Dany